ñu santaane woon fi liggéey boo xamante ni liggéeyu pour ruuj la ngir fas yéene fee liggéey ak jaamu yàlla ñu fekk fi sëriñ Abdou Lahad Jaxate mi nga xam ne mbokk la xarit la taalibe la wëllëre la ñu bëggoon ko taatan ay kàddu yoo xamante ni daf nuy leeral liggéey bi ni mu tëddee ba tey ji yeewi nañ ñu bëree bari waaye teewul mbooloo mi ñu bari ñu ngi ñëw ngir am yéene ci liggéey bi nga xam ne da koy liggéeyal sëñ Touba sëriñ bi ginnaaw buñ la siyaaree ndokkeel la ci bis bi ñu bëggoon ñu sànni ay kàddu rek leeral nu liggéey bi nan lañ ko taxaw ba mu agsi fii bismillaahi rahmaani rahim bi ñu suñu ziar ak suñu nuyoo ak suñu barkeelu ci kilifa gu baax gi toog Cheikh Amadou Bachir ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool te am ak wér barki sëñ Tuubaa maamam euh, sëriñ Saaliwu euh, laaj nga lu am solo ci euh, lii ma fekk ñëw tey di siyaare si ndax lu bari ci yoon wi lu ma ci fekki wut tam dégg naa ko ci samay waajur mu dégg ko ci waajuram lii dafay loo xam ne mooy cosaanu yoon wi ndax Sëriñ Tuubaa seen maam mu njëkk gàddaay gàddaaye Mbàkke Bawol daw nit ñi daw li ci loxo yi nit ñi ñëw sañc si Tuubaa ngir liggéeyal yàlla euh, digal ko mboolem ak njabootam digal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoom la yaraloon boppam kon tey lii murid yëpp maase di wax Serigne Touba amul tànki gannaaw tànki kanam la am ku ñëw fii boo rabatalee sa xel tuuti danga xam ne Cheikh Bachir yoon woowee rek la tege woon naka jekk waaye gën na ko wéral liggéey bi nag rawatina nag bi mu ko liggéeyloo ñi nga xam ne naka jekk ñoo féete woon yoon yëpp sax ñoo féete liggéey liggéeyal sëñ Touba waaye liggéeyal sëñ tubaa ku koy def ku ne ci wàllu daan sa doole ak jëf jël ci Cheikh Ibra Fall nga ko royee mu doon tam beneen jagle moom ci am mooy ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha ngi ñaan yàlla mu yàgg fi te wér ci barki Serigne Touba bu ko joxee ndigal moom Cheikh Amadou Bachir tudde dëkk bi moom sëñ bi ci boppam tudde ko xisul abraar yi te ku ne xam ne xisul abraar ba ko sëriñ bi def cëg njëkk la woon yi mu njëkk def ci la bokk te ay yëf a taxoon mu def ko laxas ci lam ci laxas lépp ci baatin ci wàllu sange ak luy tax kenn du la manal dara ci jëf ju ñaaw ak wax ju ñaaw kon bu ko sëriñ bi tuddee tur woowu assurance la ci naka jekk moom waaye assurance assuré waat na suuf si assuré waat na it liñ fiy liggéey kon bu ko wëlbati koo jox ko Euh, doomu suñu Abdou Sakkour ak Cheikh siñ ko àndal yëpp waa Daaru Ndiaye ak mboolem taalibe bi suñ Tuubaa yi yi kenn ku nekk ba nga ko yëgee mobiliser nga sa ay nit donte la la nga am suñu bëriwul ci ay nga ñu mën a yebal waaye kenn ku ne xam na ne liggéey suñ Tuubaa ku ne ca nga bokk ba tax na euh, mu di daal seen xol seddan na seen xel dalaan na ndax réew lii mooy développement. source yi nga ne moom lañ fi fekkoon maam yi daan ko def waajur yi daan ko def dama wax léegi sànq ne li may njëkk a fàttali mooy sanc Touba Belel ak sanc Baxdaad ndax ñëw ñoo bokk menn at kon te booba waajuram yi nga xam ne ñoo doon def loolu li ma daan leen sëriñ Touba boo gisee magu fi woon ci sëriñ si ba noppi ñu tudd ko sëriñ bu mag bi loolu dafa jàll ci ñëpp sëriñ Touba amul ndaw te kenn ku ci nekk ci waajuram yooyu ba muy sañ ci dëkk di gori àll at yam amoon sëñ basa leen mag loolu nit ñi tudd na nga koy bàyyee xel at yi mu am ba kilifa yi di am jom di liggéeyal sëñ Tuubaa di gori dëkk di fa yóbbu ay taalibe bi di leen jàngloo di leen liggéeyloo ngir lu jëm ci jumaa ji booba sëñ basa leen féete ay at ci kanam kon sëriñ bi Mbàkke ñu ngi doole dalal xel yépp xam ne daal yaa nga ci yoon wa yàlla na nga yegg man na maa waat ne kuy doomi Sëñ Tuubaa tey sa waajur xolam sedd na ci lii ndax leneen lu mu doon rek ak lu mu rëy ak lu neex neex booy génn rek gis ko xam ne euh, du am daraja ji ngeen am ci baatin du am daraja ji ngeen am ci saayir am ko waaye lii nag la kenn mënta am am àll bala ngaa bala nga daan jooy jàpp fi ne nga bëgg fépp mètre ci senegal doxum ñaxtu la ñuy fanaane di ko yendoo ndax suuf si kenn mayeetu ko moo tax fii ne ku ko amatul dootoo ko am te li gën a jafe mooy maanaam bay ndax bit si bi ngay dajale pour bay daanaka ko ko am dangay nga jéem a toog ndax risque yi ci nekk daa bari ndax gëm yàlla da ko dut féete kaw ndax daanaka da ngay da ngay sànni tàccu ngay de te yaakaar yàlla yooyu nag bu fekkente ne Sëñ Tuubaa teeñu la. sa pas-pas matiwu ko li gën a yées naa naa ñëw bàyyi ba xam booy booy bàyyi da nga xam ndax doo fa jëlee dara te boo fa jëliwul dara ca nawet ba teg yooyu da ngay daw waaye Mbàkke daal lii képp koo xam ne xamoon nga démb xam tey xam sëñ Abdul Xaadir sa waajur ba ba muy sancal sëñ Moodu Abdul Xaadir waajur sama sang bii di ko dël bustaan ndax daal sëñ Abdul Xaadir ko moowoon waaye bi mu koy sancal bustaan sëñ Moodu la fa dël waaye booba at yi suñ muudu am suñ bas mee ko mag ndax suñ muudu bu ñëwee 1939 sancu Baxdaad sancu Bustaan di 1980 boo màndaxee at yi xam ne booba waajuram wam wam doon def ab samp la yooyu nag Mbàkke mooy dalal xel nit ñi mooy xamal ne surtout nag période bi mu ko defee ndax réew mi daa yëngu ku ne jaaxle ku foo jaar waaye jaar bay fa sa bopp nga ne fa ñu ko ñël yëpp ñëw naan da ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa te loolu nga nekkoon ja loolu moo yombul nit ñi fii ne kenn jeexalutu nelaw kon nag fii moom li ma fi gis daal mooy ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa sama am daal li nga fi yéene yaa ko xam nga am ko ndaxte kat daa ba nga fa bayee yow doo kenn dara waaye yëg nañ ne ak lañ seet sax jëndoo ko ci lépp Sëñ mu nga ko jox tool yi nga jëkk am lépp Sëñ Seex nga ko jox mu Sëñ Abdou Xaadir loolu kon war na ne am koom andiwu la fi bu ko defee nag ñun ñi nga xam ne wutum koom moom daanaka ci lañuy xëy di ci gont fokk nu yëm la moom waaw ni ñaan dal ci barke Sëriñ Tuubaa sama am mu yàgg lool te li ci bëgg nga yéene waale ñu ci nag waaw moom daal fasal ñu ci bu baax baax mbak loolu daal moom Sëriñ Saal mooy li nga xam ne mun ma ko ci war a wax xam naa kàddu yi nag kàddu la rek ak kàddu yi daanu kat waaye daal li mu def yombut période bii ñëpp tiit ak fi réew mu ñëw fii baax na ku ñëwee na xam ku def na xam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf <laughs> jërëjëf si <laughs> jërëjëf <laughs> jërëjëf mbokk yi ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Abdou Lahad Jaxate eh, moom it taxawaayam rafet loolu dégg ngeen ni mu ko yëre xanaa ñu dellu si rek ci daara ku ko samp di diggante liggéey ak jàng ak yooyu lan nga nu mën a fàttali ci daara yi murit ak daara ji doxin wi nga xam ne noonu la am ci yar xale yi ak jàngal leen ak taxawu leen ak tarbiya ak liggéey xam nga daaray tarbiyatu wa tarxiya wa tasfiya la tudd lu ci ne ay étape la Sëñ Tuubaa nag ko fi sos njëkk sëñ bi amutoon Mbàkke Kajoor ji la fa xew jaayante liggéey taxoon suñ bi wax santaane ko lam koy santaane santaane it ku ci ne daf ko wutaloon ku lay taxawulu ca loola njàngum alxuraan bi bokkut ak mu wut ñu ko dénk liggéeyub sayir bi mu wut ñu ko dénk liggéeyub tarbiya bi mu wut sànq ñu ko dénk te kenn ku ci ne ci ñam ko dénk danaa defar moom wóor ko ne man nga ko kon asliya bi foofu la jóge ku ne xam na suñ mudlu bi xabaan moom la féetali woon wàllu tarbiya gi ak maam Thierno suñu Abraham Abdoulaye jàngaleem alxuraan meeg xasit xam-xam bi suñ mbakki bu lislaam njëkk xam-xam bi noonu ko sëñ bi séddale woon nag dafa mel ne doomam yii fi wéy ak sëtam bii ak ñam ko bokkal dañoo boole yooyu yëpp ndar képp ko sëñ bi centralisé ko ci seeni i jëmm kër goo ci dem fekk fa ay saabees yu jàng alxuraan yu ndaw te li gën a jafe fii ne mooy ay saabees dugg ci këru kilifa fekk fa gone yu ndaw xool amatul moo tax kilifa goo ci gis ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu